mbër gàlle yaay mbër gàlle fanaan mbër gàlle yaay asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi amaan mbégte contentement yi ñuy suivre sur Kewel Info kon ni ñu koy defee à chaque fois jotaay làmba ah, di nuyu nag ki nga xamante ni moom mooy suma sëriñ am Mawlaaya Seydi mu Moustapha si di ko ñaanal gudd fan ak wér yàlla aar ko sàmm ko làqal ñu ko fa làq àggul tey nag ah ñu seet champion boo xamante ni ah, bañ ko découvrir nag ñu bari nag ci tournoi yi daal di ñing bi lañ ko découvrir mu nekk xale boo xamante ni xale la ba mu duggee ci làmb yàgg na yàggul marqué empreinte ñu fas yéene waxtaan ak moom ci début carrière am ak instant bi tournoi yi fu mu toll naam moo qualifié nag final am na nag ay wax yu ñu ciy dégg i ñi ngi ak Jax production Thiat Daouda Fall maa ngi lay nuyu. waaw euh, Fatma maa ngi lay fay di nuyu Sénégal di nuyu ahlu lamb di nuyu monde entier di nuyu waa Guédiawaye yëpp di nuyu waa Waalo di nuyu waa Casamance waa Guinée waa Gambie. di nuyu waa Fuuta bu baax a baax a baax mënuma xuus nag te jaalewu ma suñu papa suñu xarit père Doubalès di ko jaale Balla Gaye di ko jaale Sa Thiès di ñaan yàlla na rëcc loolu mu doon def ci kaw suuf. di jaale waa Waalo di laan jaale Baye Paate yàlla ko yàlla xare mu rëcc lu mu doon def ci kaw suuf di jaale Baye Modou Maam ak père Lamine fi jógee barki démb maa ngi koy jaale waa Waalo yëpp. nuyoo bu am na solo mais di fàttali mbokk yi nag tournoi bi nga xamante ne moom la ñu boo xamante ne mi ngi war a commencer le premier octobre incha allah muy 100 pour cent yëpp nag bokk ci 16 100 pour cent def nañ li nga xamante ni moom mooy tirage yi équipe yi nga xamante ne ñoom ñoo war a daje incha allah après dañ ci ñëw membre euh, tey boo doon résumé li nga xamante ni moom mooy sa parcours kan mooy Thiat Daouda Fall. waaw Thiat Daouda Fall nekk ki nga xamante ni mu ngi judd ci ay keppaaru champion. màgg si keppaaru champion dund ak ñoom dund làmb lu bëree bëri bëri màgg yàlla def mu doon mbër fas yéene topp ay tànku magam ku ci mel ni Double Less numéro 2 Balla Gaye Elton Sa ak képp ki nga xamante ni mës nga teewal Guédiawaye rek maa ngi fas yéene topp sa ginnaaw tànk surtout suñ papa suñu xarit Alioune Seye te maa ngi koy nuyuwaale au passage di ko wax Diaz lan la. <laughs> dégg nga a Daara Fall daal mi ngi noonu. Mbër fan nga defee sa enfance. waaw man nag maa ngi foowee Ndar ba man juddoo fii après quelques instants lañ ma joxe woon si sama bàjjan euh, Ndar man moom laa xam moom laa woowee yaay mooy sama xarit mooy sama lépp di ko nuyuwaale au passage di ko wax yaay sa doom na mun na la trop trop sax bilaahi Ndar nga yaroo euh, tey lan moo la indi fii donte nag say frère ñoom ñu fi mais sa ñëw Dakar. waaw caat ba mu ba mu nekkee ndar mi ngi doon jàng normal mais première vacance am ci première vacance am fii Dakar lees yobbu ko ci écurie di ko foofu di ko yóbbu di ànd ak moom xama mu dem ba bëgg làmb trop trop trop di jàng di bëre di jàng di bëre di jàng di bëre ba keroog yàlla dogal muy bàyyi jàng continuer làmb waaw. sa étude fan nga ko defee fi nga ko commencé. ndar laa commencé après mu ñëw fii eggale ko fii école euh, quinze école Nassane 15. transfert transfert après mu jóge fi dem euh, sem banque islamique foofu laa bàyyee jàng aussi. ban classe nga jël nga bàyyi. man maa ngi bàyyi troisième secondaire. fa laa bàyyi jàng. mais kon war ngaa deuxième bëri ah? non même pas <laughs> man nilaar laa nilaar bu mag sax. <laughs> mbar kon su ma juumee dafa mel sa jàng làmb moom moo ko yàq de. bokk nañ ci lu ko yàq aussi. Ah, parce que dem naa ba mujj gi li ma doon entraîné sax moo ëpp li may jàng donte mënoon naa ko nag trop ba ma ko bàyyee nag métti woon na lool parce que sama papa d'accord ci woon parce que moom li mu gëm woon mooy que ni xale jàng ba pare quoi. Ah. xam nga gars yi dañ ne sport et étude ñu gis ne mbëri sax ñi nga xamante ni jàng ñu ngi fay ñu leen jàngal est-ce que jaru woon tamit nga dem ba benn benn phase boo xamante ni comme terminal et tout mais tamit euh, da nga dem woon da da nga def choix wala da nga rek bàyyi. waaw dëgg la parce que demoon naa ba tool fi nga xamante ni sport mi ngi commencé woon ëpp doole étude bi foofu parce que demoon naa mujj gi ma ci boole lu ci bokkul di daw jàng di def lu ma saf di dem géej di entraîner xam nga ñu demoon ba mujj gi nag sam papa yenn yi yenn yi dem ba mujj gi boole yi boole yi boole yi ba mujj gi nag mu maaroon ci trop mu choisir loo ma nag man mu choisir bëre moom d'accord ci woon nag au début moo tax mu tere woon ma bëre début bi. waaw mooy entraîner di entraîner di jàng bëre di di jàng bëre ba mu d'accord ci may doo ko dugg nag ci bëre dëggantaan. mais mbapat nga. mbapat naa mais ñun amuñu chance mbapat dëggantaan mais comme mbapat nommé amul kenn ku mun taxaw nga ne maa daan caatu daaw dafa am aw ma defet ci nommé mhm, mais tournoi moom bëriwuma ko lu bëri trop wax dëgg yàlla. Mhm. est-ce nga ak euh, yoo xamante ni ñu ngi doon lëmbe làmb euh, ci li nga xamante moom mooy mbapat. non non wax dëgg yàlla bëriwuma ak mbëri nga xam te ñi ngi lëmba làmb instant bi nii ci ci mbapat mm. waaw. lutte avec frappe nga dugg ci ban année. maa ngi dugg ci lutte avec frappe le 25 mhm, laa def sama premier combat contre Bébé Balla mu daan ma jël bu rëy sax maa ngi koy nuyuwaale au passage. Mm. waaw di ko ñaan ñaanal ndam li jikko aussi. Mm. combat boobu su ma juumul woon ñi ma si fayoon cent mille la ci fayoon. après ticket yi ma joxoon dama ko jaay ba mu jeex ba promoteur bi kontaan doole laat ma xaalis. en général ñu bari seen première combat dañ koy perte mais après suñu fay jógee da nga gis ñu nekk ci ay dynamique de victoire Bébé Balla ba ngay dugg ci moom xamoo ko woon wala xamoon nga ko ak combat boobu kat moo ko tëggoon. combat boobu Jax moo ko tëggoon ba may bëreeg moom xaw ma ko mais moom xam naa bu baax a baax a baax fa dëgg yàlla mais man moom dama ko umpale woon parce que dama dugg ci làmb en tant que xale. Uh-huh. mais nag mu nekk boroom jom borom fit borom fulla borom fayda. Uh-huh. nan nga tuddee jël bu rëy. jël bu rëy parce que daf ma daan deuxième pied la ma daanee daf ma mboot. mboot uh-huh. bu rëy top 5 kay. mboot boo xamante ni dugg ci làmb premier combat mu perte ko di nga dégg ñi naan du mbër wala ñi naan booy bi naan mais après yow sa premier combat nan nga ko dundee. waaw ba mu ñëwee. wax mënul ñàkk déggoon naa lu ne mënul nekk mbër xama affaire yooyu noonu wax yooyu nag ma dégg moom ma yokk jom sama papa ne ma lii moo la mën a def mbër te moo la mën a génne ci làmb ma waxtaan ci ak samay frère Aline Fall ñoom Bés ñoom grand Lamine Faye xama ñoom lees ñu tegaat ma ci kot may entraîné ba jëlee ci feebar yu metti mais man lenn laa gëmoon mooy que ni heure bu mu ñëwaatee dinañ xam ne booy yu màgg na ci côté xel ci côté doole ak ci côté bëre surtout loolu. après sa deuxième combat yàkkan la woon. man ak doomu Yoff la woon boo kii Yoff waaw Fallou Ndiaye moo ko tëggoon sax si TFP bi tournoi yi noonu su ma jumul deuxième journée bi la woon jour nangu la Pambaay jour boobu la woon ma bëreeg yàlla may ma ndam mu nekkoon lu lu metti lool parce que combat desoon na quelques jours samay supporters mu tombé ak suñu jàngu dëkk. samay supporters ñëpp dem mu desoon fii ñi nga xamante ni ba léegi ñoom laay àndal heure ba geesoo ñoom laay gis waaw mu metti woon loolu parce que maa ngi bëre daanu waru ñëwaat pression boobu tamit nekkaat sama kaw boobu parce que laa mujj mën naa leen la ma fa andi supporter dañ koy compter mu metti woon lool mu ñëw bëri ko ci jom fit fula ak faayda yàlla may ma ndoom mm, waaw. ba ma jógee ci doomu Yoff après. jox ma. maa ngi Mboro. men ñu bëre bu bàcc seras ñu bëre moo it ku kuul la ñu bëre yàlla may ma dem ci kawam ñu joxaat ma soose maane bu rëbës mu jóge si la bëreeg John Kara tamit wax laa mu jooju métti woon lool mook John ñu bëre su ma jumul vingt et quelques minutes si amul ma dégg ci lu la ne aussi booy dafa waane waru woon jël diw ma bëreeg ak sama ngoor ak sama fula ak sama faade yàlla may ma ndam après bu nga jógee ci soo sama si lañ ma dugg si tournoi bi. tournoi benn defet nga ma. <laughs> benn defet nga am six victoire wala. cinq cinq victoire. nga def mbër. non six. six combat six laa def. kay lii moo tax kaw góor dee naan yéen ñaar làmb kii wu leen nag yow mbër nag gars <laughs> mais xam nga ni yow da ngaa waane te bi tamit. dañ laa dañ laa tëbal nag kaaw kaaw hmm, kaaw dama lay fekk si mais mbër yow waane moo tax yow nga ñëw dugg si tournoi yow tournoi bi avant nga si bokk dañ la proposé woon beneen combat wala dañoo ñëw rek contacter la ne la tournoi. tournoi ba ma ciy bokk fekk na ñu doon dox sama combat ak Yankaaw. Yankaaw meen. Equivox ñoo ko bëggoon di dox sama combat ak Yankaaw bëggoon Albarka Kayre ak Kaaw Gourdin. ñoom loolu lañ bëggoon léegi après la mu Italie contacté. ma ni ko après bu la ci combat boobu noonu après ñoom ñoo bàyyi Idda soog a ñëw wala. non man dama am ménager te loolu mooy liggéeyam mu jëm ci wàllu combat waxaale combat combat bii nga war a bëre ma war a bëre combat bi loolu moom moo koy gérer parce que loolu moo tax man ak moom ñuy liggéey man luñ ma sant mooy bëre. léegi ñoom ban bëggee combat bi ñu ngi si doon wax moom ak aas euh, ak ñooñu xaw ma nag fu mu mujjee mun ma la wax ni ñoom ak aas lii lañ wax wala waxuñu lii après laa togg si yàgg ñu ni ma eh, daal moo bëgg seen tournoi njëkk da ma njëkk woo téléphone man ko man aw ma droit waxaale combat dangay jaar ci lees wala ci aas moom mu wax ak lees lees wax ak aas ñu trouvé terrain d'entente seen biir ma xëy xëy lees ni mu tournoi bi ngay bëre noonu laa duggee si tournoi bi. mais ba dugg ci tournoi bi amoon ay calcule parce que su ma juumul ñi ci nekk ñoo la jiitu ci lamb ko ci mel ni Kaw Gourdin Yankaaw moom parce que maîtriser wu ma ko ak albarka kay rek moo la ci lamb ak kan sax. waaw ba may dugg tournoi bi albarka moomu jiitu si lamb Yankaaw moomu jiitu si lamb Kaw Gourdin moomu jiitu si lamb ma leen di nuyu ñoom ñëpp au passage di leen ñaanal jàmm ak xéewal. mais man ba muy dugg man dama habitué leen muy lan mosuma bëree ki nga xamante ne sama morom la mosul am ñi muy bëreel ñëpp ñoo may jiitu su laam fuuf ñoo may ëpp expérience mais dama ciy ànd ak ñoom war a àndal muy sama mag yi sama xarit yi xam na ñoom Youssou Ndour Fils de Balla Gakou xam nga Alioune Seye Bës Lamine fay xam nga képp ki nga xamante ni mag nga ci géejawaay am nga looy représenté ci géejawaay dama ciy ànd ak yow di la déglu luñ ma digal ma def ko luñ ma tere ma bàyyi ko aussi ma noonu laay préparé combat. Mm-hmm. Ah, nga dugg ci tournoi bi fekk si ñooñu ñu lim sànq léegi sa première journée nan nga ko waajee ak première journée bi yaakaar na tasante woon. waaw ah, première journée bi man ak euh, yankaaw la woon préparation métti woon lool parce que mi ngi tombé ñu ngi koy préparé avant corps pendant après corps. quelques jours si teg ñu ñu combat bi ñëw ñu ko doon entraîner entraînement yu métti sax yu méttee méttee luñ ma teg ma tegaw ko que ça soit ma feebar ak ma app yëpp dama koy tegaw parce que man xamoon naa li ma bëgg te man combat bu ma jëm si rek ak bu mu mënti doon damay jàpp ni combat boobu mooy sama komba bu ma weesu weesu naa ko mais nag la fa xew ci biir géew ba ci loxo entraîneur bi la ak mbës xam ak grand ak staff daal ñëpp ñëpp lépp lu fa xew ñoom la mais du mu mënu caat daa dafa du dara. sa ko ak Yankaaw nan nga ko bëree. waaw Yankaaw at bi dafa sifflé maa moom yëpp dox latéral ma dox latéral gauche moom mu dox latéral droite ñu jëm si saako yi mu taxaw ñu suul tànk yi léwtoo man mu déplacé wu taxawaat ma xam ni kii su ma ko dóoraatee góor day feeñ ma cookaas gauche. taxawatul ma xaaci duraat mu daw mu daw di song ma boole ko ko faaq ma faaqee muy mu bëgg profité plaqué ma xajal ko mu sigi daw bal ma profité jàpp sama ñaari ngem jàpp sama ñaari loxo yi si ngemb bi di di waaj def action moom mu roof caxabal ma jéggi mu def plaque mu def zongale mu def changement du pied zongale ko ak sama pied droite ma zongale dóor mu taxaw mu si la def rotation ak moom mu dóor épaule noonu la laam ñu demee. moom da koo maîtriser wala da nga doon seetaan ay combat wala. non du question de maîtrise mais am na combat bi xamante ne maa ngi instant xam naa baax ni mu doon bëree la demee. mu mhm. nekk sa première victoire ci li nga xamante ni moom mooy ci tournoi bi gars yi commencé di wax après ñu gis tamit kaw guur na bëre defe naa ak albarka après daan léegi après yow ba ngay xool tournoi bi est-ce que yow amoon nga yàqim ni carrément. man dinaa nekk dinaa dem euh, final. man nag dafa am gëm-gëm bi ma am su ma juum sama première sortie avant tournoi bi wax naa ko ma ne ñoom dañoo dugg si tournoi pour participer mais man dama dugg si tournoi pour jël te ba léegi loolu laay doxee. foo teg loolu. làmb lenn la entraînement sérieux ànd ak ñi nga war a àndal jox nopp ñi nga xamante ni ñoom nga ko war a jox. li des yëpp ay moto la la rek. dañuy entraîné am nañ staff am nañ lépp nga leen di ceeñ ci naan ay. non ceeñ bopp laa xam. ñoo xamante ni ñoom it duñ sérieux wuñu ànduñoo ak ay kii nangam noo a wax noonu maanaam ñoom li ñuy entraîné ak lu ñuy def fu ñuy toog fu ñu warul toog loolu ñoom la concerné. yow yaa ko wax. mais man sama bopp la xam. mais yow yaa wax loolu ba. dëggantaan. mais sama bopp laay wax waxuma ak keneen. man li may man jeexal na wax. mbër nag yow mbër la demee. ba nga jógee ci yankaaw ci yankaaw di moins kañ nga am. maam Albarka Kéré moom mu jógee si défaite moom mu jógee si victoire. waaw na préparation. préparation combat amul benn bu yomb surtout ñun parce que ñun lépp lu ñuy teg rek day fekk ñu àttan ko. ba ma bëreeg albarka ba pare man ba ma bëreeg yankaaw ba pare waru bëreeg albarka liñ ma doon teg moo ëpp doole fuuf liñ doon teg liñ ma doon teg contre yankaaw waaw. ndax dafa mën a bëre nag te der la. mën na bëre te champion la mu jiit su laam fuuf lim taxaw ci géew ñun taxawuñ ko ci géew te der la aussi comme ni nga ko waxee raison pour laquelle ñun doon teg coono yu métti yooyu noonu ba nga xamante ni bu ñu demee ci géew ba dañuy def différence. albarka combat bi mu nekk combat bu gën a yomb defe naa de sa combat. <laughs> non ci gis-gis yomb na mais yombul parce que su ma ñëwoon taxaw du demee noonu. te da nga gis ne albarka da nga koo xaw a sàcc doole wala demee noonu ndax gis nañu combat bi euh, albarka waxuma dirigé woo de mais gis nañ combat bi yow euh, nu mu tudd sax nan la ko olof di waxee ñun ni ñu ko gisee dafa yomb quoi dafa yomb dafa mel ni comme si c'était que yow da nga ñëw tari quoi dem sa yoon. non demeewul noonu nekkul dafa yomb. mais nit lu mu mën dama mës dégg père Birahim Ndiaye naan nit ak maninam da nga koy moytu albarka ki ne xam na ni bëre mooy ñëw teg sañ-sañ loolu dama ko ciy woo ba mu taxaw ci ma dévier ko dem xool leneen loolu laa bëree ak moom. nga daan albarka Kairé mu nekk tournoi boo xamante ne nag ñu bari nag gën la cee découvrir ah parce que nag mbër say combat bariwul de mais da ngaa ci gars yi léegi ñu bari nag soog laa découvrir. xam ni carrément booy bii nii na ko gars yi bàyyi xel tey boo déggee ñu naan tournoi bi moom moo la génnee loolu la lay def si yow. waaw sant yàlla rek sant yàlla rek mais man li ma gëm mooy li may liggéey du pour instant bi nii mais pour après la. kon ñu bi taxul ngay liggéey. waaw fa dëgg yàlla nan lañ koy waxee sax jaakatu lan jaakatu bitigu mbagg boo gis boo xaree xol bi. magasin moo nekk ci xool bi noonu la demee ñun ñu ngi xool leneen wax dëgg yàlla. Mm. magasin yi dinañ ci ñëw ndax boo yore ngaa waane beneen bi mooy euh, après def naa suma juum deux victoire nga am yaa ci def deux non ak kaw gourna euh, léegi après def naa trois fa la yem de. non. ba ma bëreeg yankaaw ak ak kii ak albar. la moo tax nga ni fa la yem. comme. Euh, nu mu tudd. foofu lañ toll foofu lañ foofu ngeen toll. foofu lañ toll kay. mu desoon final mu des final bi waaw. Ah, ah. ñu gis ni albarka dafa bëri kaa kaa euh, yankaaw yankaaw moo bëri ak sama juumul kee kaw Gourdin ñu gis ni après euh, kii dafa déposé recours kaw Gourdin ñu jox ko li nga xamante ni moom mooy victoire bi kon donc moom tamit de combat de victoire yow. da nga silaasoon sa waa groupe wala yow kaaw nga silaasoon xam ne yaa kaaw yéen ñaar yéen a war a daje final wala yow li tax nga silaasoon kaaw wala ñoom ñëpp nga silaasoon. non peut moom fi may waxee déggu ko woon. waaw dañoo toog plateau léegi Babacar posé ma question ci moom ma ne ko non kii man dama ko silence peut-être moom fi may waxee déggu ko ko silence c'est là parce que man ak moom bëriwuñu woon lu ma ko wax dama koy tooñ bu ma jaxaseeg ak euh, ak lu laam parce que man li ma wax xam naa bu baax. man ak moom bëriwuñu woon lu ma ko waxoon jour boobu dama koy tooñ parce que mi ma dese woon beneen combat avant moom moo tax ma ne woon dama ko silence mais li ma ci waxoon tegguwuma ci dara man ak moom quatre-vingt-dixième de te bien en or la. ba léegi noonu lay demee incha allah. mais xam nga réellement ki nga xamante ci ki nga dugg ma ñoo ñëw ci loolu sax euh, final bi euh, Idaly ñu ngi moo ko non même pas Idaal tëgg ko ma koy nuyuwaale au passage sama grand la sama xarit la barki démb rek maak moom ñu ngi wax téléphone ay minuit sax ñu ngi doon wax téléphone lu yàgg sax sama waa la. Idaal tëgg ko. Idaal tëggul combat bi. sa premier ci kii bi tournoi bi ko tëgg. ci tournoi bi. Idaal. <laughs> Idaal moo ko tëgg xam nga loolu la koy posé ah, ah, eh, ñu bari nag ah mbër koy jawee. ñoom mbëri dañuy wor ils n'ont pas sérieux mais mbër nag wax dëgg yàlla idaara ñi ngi ñu ko nuyu au passage mu nekk xale boo xamante ni dafa yokk làmb ah wàññiwul làmb mu wane leen te wax na ko nee na mooyam génne à un moment donné idaali yoratul rek idaali wax moo ko de nit ñi nee yoroo idaali idaali ne idaali yoratul rek ngeen woon ko ginnaaw la idaal yi est-ce que mën ngeen ñëw tamit lan moo tax final bi Idaaly tourné wu ko mu dem ci loxoy Jax dafa wër-wër loo quoi ci loxoy Jax moom sax mi ngi naan dañ koo jaay doole yéen tamit da ngeen koo jaay doole. <laughs> kan moo ko jaay doole man. ah Idaaly daal neen da ngeen koo jaay doole. non faaw mu am lu ma leeral tuuti aussi pour nit ñi xam ko ñi xamul woon xam parce que jot na ko man contacté nañ ma ni ma diw moo soxla sa combat ak diw finaal bi man leen man. ñun ma waaw man leen balaa mu joxe sama accord sama adversaire fekk na bu joxe accord am bu yàgg. Kaam Gourdin joxe na bañ ko contacter na joxe accord am si saa si. loo ko wax. laa ci que man du ma dugg ci ci dara noonu noonu man leen moom lim accord accord joxe moom la engagé man li nga xamante pour man la man la engagé ma ne as du jël benn avance te man ak Idaly ci bu waaw déggoonte wuñ ci bu baax ma ne ko wool Idaly moom nag mu woo Idaly. moog idéal li ñu wax ñoom ñaar la comme ni ma ko waxee rek moom loolu moo fi liggéeyam que ni caat combat bi. combat bi la war a bëri. mbër manager du def dara sans consentement mbër mi ndax mënuñu concevoir tamit idéal tëgg seen combat baw affaire bi war a neex. xam nga ngeen na ko fay yàq ngeen nga fa ñuq mu yàq wu naqari dem bayal jax parce que ñu bari ñu ngi naan problème mu xaalis moom moo posé wu ko ne xaalis bi leen jax fay mu ëpp bu fuuf ko ni ñu leen fay ak Ida lim proposé loolu moom ak Asa mooy li ma wax. sa consentement joxe nga pour waay mbër loolu noonu pour loolu noonu Asa kese moo leen si mën a jox ay éclaircissement xamul tax uh-huh, uh-huh. parce que man sama kàddu. compté wul foofu maanaam man sama kàddu kenn na ko yor. ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy sa adversaire muy Kaw Gourdin mu nekk xale boo xamante ni nag day def ci lutte simple di compétir bu njaay production bi gis nañ mu ñëw ci lese bi moom moo ko jël di dem ci àll yekk yooyu noonu mu nekk mbër mu mën bëre te mën bis est-ce que xam nga bëre. xam naa kay xam naa ko parce que seetaan naa ay combat am yàgg na bëre ma toog tiir bi seetaan. <laughs> <laughs> non loolu dañ na silence bi dañ na. silence non dañ que instant bii maa moom ñooy bëre waaw silence dañ na. Mhm. mais gis nañ tey tey daan Kaw Gourdin lan la lay apporter quoi parce que gis nañu tamit yow am booy ndaw yi nga xam te ne ñoom ñoo fi nekk mën nañu wax ni ñu ngi ci ñam bariwul bëre Kaw Gourdin ndax bëre Yankaaw xam nga ay albarka kay rek am nga chance boobu tey daan ki nga xam te moom mooy Kaw Gourdin lan la lay yan booy fi nekk nga wax. booy safi. ñan ay genre ñoom nangaloo genre yooyu. peut-être làmb boole guñ moo tax. buñ làmb boole ñun ñëpp damay bëre ak ñoom. Mhm. mais daan kaw Gourdin peut-être mu am fu ma mën yóbbu de. ah waaw. kaw la. mais yàgg naa wax benn wax. modèle bu nekk am na école de lutte Balla Gaye dañ ci bàyyi xel. am na école de lutte Balla Gaye. Mhm. Mhm. modèle bu nekk tamit kaw maa lay tontu modèle bu nekk am na écurie Yaraax. non a dëkk de yaa ngi tiit de caat nga toogal di tiit dëkkul Yaraax Dalifort dëkk. baax na. buñ sumee ku xool caat xam ni caat changé na buñ waxee ku xool caat xam ni caat am na staf dëggantaan buñ bëree tamit ku xool caat xam ni caat am na staf dëggantaan ñun loolu la ñaan yàlla te di lancer appel waa Guédiawaye ñëpp nag. di leen wax seen doom seen rakk seen xarit seen mag am na combat le 4 décembre final grand combat dee ñaan ñu jàppale ma taxaw ma bu baax a baax a baax parce que mobilisation bi luñ si mobiliser doyut li euh, ci woon ak waa Waalo ñëpp ñëpp maa leen di woo ci combat bi incha allah. sa premier grand combat. waaw moo tax nag dañu war a wane lu leer. que ça soit muy côté mobilisation bi animation bi xam nga tek tey dal wane sérénité ñëw bëri combat bi yàlla mooy ñu dem incha allah. yaakaar ko dàq bëre. man xëccoo ma bëre de. moom nee na yow. man xëccoo ma bëre. mais moom moom li mu wax moom la engagé. chaque jour nee na dàq bëre na. wax loolu kañ la wax loolu. loolu la la fan la ak kañ la. man xëccoo ma bëre daan laa xëccoo. sànq nee na yaa ko nee na yow yaa ko dàq bëre. man mënu lépp. man mënu ma bëre daan laa mën. yàlla dafa dogal mënu ma bëre mais daan laa mën. Mm. nañoo xaar ah, bëre boo xamante ne ndax moom bërekat la yow tamit bërekat nga mën nañoo xaar tey mën nañoo leen xaar ci benn bëre boo xamante ni gars yi tey dañu ko kontaan. waaw làmb lu mu laaj incha allah dinañ ko def su dee bëre la la laaj dinañ ko def bu dee xeex la laaj dinañ ko def incha allah bu dee bëri xeex la laaj dinañ bëri dinañ xeex incha allah. kan ma ni moom mooy diriger du ma ni man maay diriger. su ma nee la laa ma ji lu mu laaj jeexal na wax. mais mbëri xaw ma de yàlla xam. dina yàgg. xaw ma yow dina yàgg wala dina gaaw. mais yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla mi am ndam. di may ndam yàlla ñëw yàlla may ndam. loolu laa koy wax de kenn ko ñun caat ak mafia kaa yow laay waxal dañoo suul tànk yi ñeme jam-jam yi am bàyyi xel bu baax ci li may wax. mbër ñu gis ni ah, dafa mel ni adversaire bi da nga am looy calculer ci moom ndax da nga xaw a trop ndax suñu la waxee adversaire bi nga ni lu ñu wax rek nga bàyyi kook moom kon moom yow da ko da nga xam qualité bëreem wala que ni yow da nga koy cenc wala. yow da nga am loo xamante ni da nga ko koo xaw a jàppal. non même pas nekkul que ni damay cenc wala dara ñu bañ nekk nit ki nga xamante ni dañoo am kilifa te dañuy yàpp te ñi ñuy suivre ñi ñi ñuy suivre bari nañ te raison pour la laquelle amuñu droit toog di def yenn erreur lépp lu ñuy wax rek dañ koy xam ba heure bu ñu toogaatee rek bu ne yaa waxoon li ñu ne waaw loolu rek du leer. lees moo dàq bëre. yéen ñaar am nuroo ci bëri. ba lépp ñu nuroo lépp. mais mhm. moo daaku bëri. lépp lu ne ci man moo ko def ci man moo ko war. Balla Gaye 2 de Lion de Guédiawaye yaa fi ne. fit. lees moo fit. moo daaku bëri moo daak xeex. lees <laughs> mais lees doo ñibbisi nag nam nañ la de <laughs> nga uyu fi rek <laughs> sama garab maa ngi koy bu baax a baax euh, mbër. Euh, dañuy bàyyi kon nga woote rek ndax mbër dafa mel ni tey moom ah tey mbër dafa mel ni xuma dafa am loolu laal xuma nu mu demee noonu internet yi gis ngeen de man tey mbër mbër mi xuma daa am lu mu laal mbër xuma est-ce que laal tey. non yow tournoi bi nga topp moo la sonal rek du leen. waaw eh, euh, man tournoi bi nan ko gënee gisee initiative bi. lu rafet la nekk na li nga xamante ni peut-être ay mag ay kilifa ñoo ko waroon xalaat mais yàlla ci yow la ko dogal. mu nekk li nga xamante ni ñëpp nangu nañ joxe loxo nangu cee participer mu nekk Cap Foret di la ci jaajëfal bu baax a baax a baax di wax képp ku disponible rek na nga teewal sa gox waaw. wooteel. waaw damay woo sama xarit sama doom day Aliou Lo borom centre yo di woo Paate arobase Marley alliance Marley xam nga di woo Kéba Kanté gis naa geste bu rafet bu mu def jàppale suñ papa suñ xarit père Mohamed Ali di ko ñaanal moom yal na yàlla wéral cër yi di woo Lamine Dieng depuis Allemagne yónnee na ma équipement yu rafet dèjà moom mi ngi jàpp ci kombaa bi di woo Mouma Ndiaye futur maire de marché Samb di woo Pape Mama Fall suñ papa suñ mag suñu xarit di woo Cheikh Sow Touré temps di woo jaaji di woo jaaji bu baax a baax a baax a baax maa ngi koy woo bu baax mu jàpp ci combat bi Samba sama coiffeur bu ñaawul bi lu mu watul baaxul Pathé Cissé depuis Espagne di woo Jibi Kayta borom Italie ak soxnaam monsieur le maire di woo Mudu Mamoun borom Italie aussi di woo waa Siko Asumaaye borom Asko yi luñ tëggul baaxul di woo waa Fuuta waa Liw waa Pade waa Cekkeen waa Caareen ak set dëkk set dëkk olof yi nekk Fuuta yëpp sama turandoo Pa Ousmane Diop maa ngi wax ni ko combat la waaw lim si jàpp rek doyul. di woo waa Ndar surtout waa Pikine Angle Tall xam nga waa groupe Nebo di woo waa Waalo waa Ndimbu xale ak mag Pël waa Góolam waa Cekkeen waa Caareen waa Ñiit waa Yaman ñaari joxor yëpp xam nga waa waa maa waa Waalo yëpp di leen wax ñu ñëw jàpp ci combat bi xam nga di woo di woo waa Gueule Tapée waa Manko sama feef waa Jàppo Sam xam waa notaire waaw di woo Ahmed Aydara nag Ahmed Aidara surtout surtout yonent bi di ko wax mu ñëw jàpp ci combat bi di ko wax Ahmed combat boo si jàppee da ci war a jàpp boo si jàppul da nga ci war a jàpp. ñun <laughs> rek da nga mystique nag. waaye <laughs> nee nag yow mooy lan. ah booy gis nii après. <laughs> lan mooy mystique. la da mi nga wax yaa xam man xaw ma ko. gàllaaj yooyu pour yi may takk noonu. Hmm. non yooyu ay habillage rek ay morceau ci tailleur laay dem ñu mayoo ma takk rek loolu kese du hmm. sa combat sëñ Massamba Ndour sëñ Massamba sa combat la Wuri Sow combat bi sa combat bu baax ni sa combat baaxul. kooku sama mag sama papa sama xarit kooku mooy borom géejawaay fi mu ne nii lu mu bëggul géejuwaay moom la neex. duma ko woore parce que mi ngi ci biir déjà ci kër gi la bokk dama koy nuyu rek yaa ma gën a xam per Mbaw ak sama papa Diaw ñoom ñëpp maa leen di woo ñu taxaw seen doom ak seen rak yàlla may ko ndam le 4 décembre incha mu nekk première grand combat am incha allah yàlla dina ko may ndam ñu ñëw feete ko fii nii. maa ngi bëggee gars yëpp sama fans club bi maa leen di char di leen wax xama ñu yokkaat taxawaay bi ñu ñëw ak yeneen facette. mbër gàlle yaay su guddee